foog xale yi daal di amalee discours am moom mi lee dellu si bu baax a baax si conséquences yi nga xamante ne ni moom la cigarette di jur bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom lu tollook huit millions ci ay doomi aadama ñooy ñàkk seen bakkan at bu jot te lenn waralu ko lu dul cigarette. dañoo gis ci àdduna bii nii pon la muy rey bari na at mu nekk pon rey na juróom ñetti millions yi nit toxkat yi ci seen bopp. dañuy rey ña nga xam ni ñoom la ñu dendal ña nga cay rey lu tolloog huit cent mille ba mille millions ak ñaar. thème journée bi nekk protéger les enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac maanaam fexe rek ba aar ndaw ñi ci doole ji nga xamante ne ni cigarette mu ngi wéy di am doole ci réew mi. ndaw ñi lay nga xamante ne ni yomb na leen ngir rek ñu daal di fooyee cigarette bokk na ci lu ko waral di cigarette yu bees yi nga xamante ne ni moom lañ tàmbalee jaay ci école yi. kii nag boroom kër yi xamuñu ko buñ ko gisee ci saagu gone lu ñuy defee dañ naan la kii kat crayon la rek daal wala ñu defe ni kii kat niñ koy defee ni marqueur la mbaa leneen ndekete gone gaa ngay rey boppam képp koo xam ni kii dangaa toog waxtu di tox chicha mi ngi mel ni tox nga ñaar fukk ba ci téeméeri bantum muy ñaax këru diine yi ngir rek ñu gën a góor góorlu si wàllu woowee dama xool gis ni Popenguine kat yëf yaa nga fay continuer xam naa ni nag dinañ ci waxtaan ak kilifay diine ya fa nekk te ñoom itam bañ ñu seeni askan te gëm naa ni buñ leen koy eggee dinañ ci wax la ca war def ca la ca war docteur Abdou Aziz Kassé daal di wone ay image yuy firndeel li mu wax loole nag nekkoon li nga xamante ni nii ñu bari daal nañ cee bàyyi xel tax na ndaw yi tamit ñoom daal dinañ see jëlee ay loson ngir rekk cigarette ñu bañ di ko foowee